quand il une majorité et ses alliés dama daan gis sax ay temps da ngay gis euh, boo nekkee ministre nga am directeur général yow ministre allié nga nga am directeur général boo xam ne euh, kii la euh, allié nga am directeur général boo non yow ministre nga mhm. tu de la majorité du parti majoritaire mhm. par exemple APR nga mhm. nga am directeur général boo xam ne c'est un da ngay gis duñ la duñ la jàppale duñ la fulaal duñ la may doole fi nga dëkk Euh, le parti majoritaire day bëgg a jël yëpp est-ce que naruñu euh, euh, xool loolu à Bambey c'est-à-dire Aïda Mbodj lu muy nekk seen bàjjen yëpp allié la allié allié la yéen tey ngeen taxaw ci dynamique jël Bambey teg fa seen nit muy nitu Pastef parce que da ma ne yéen yow pastefien de souche nga est-ce que du c'est ça qui se joue euh, d'ici à 2027 euh, non je crois pas parce que li nga xam ne je ne crois pas benn nee naa la man je ne serai ni député ni président de. conseil ouais, mais le parti des ambitions. Hein? le parti aura des ambitions. waaw le parti fu mu aw man fa laay aw nag moom foofu moom am naa ci fulla gu day ni hmm. parti bi lu mu def rek man je suis un Baye Fall du parti je suis un inconditionnel du parti foofu moom fii laa koy waxee tele man ñaari kilifa laa am ci politique présentement muy le président Diomaye. nga xam moom mooy sama kilifa comme je suis dans l' administration yoreel comme ministère ak le président Ousmane Sonko nga xam mooy sama leader politique ñaar ñii lu ñu ma def loolu laay def. mais euh, on, m'a dit que vous avez été très déçu bi ñu defee le décret de répartition des services que da nga doon bëgg ñu jël DER euh, rattaché ko ci sa. ci sa ministère ah loolu laa dégg. non ñooñu dañuy wax loo lu ñu xamul. ah non je n'ai jamais été déçu. ah mais bëggoon nga ñu dugalal la DER. Euh, DER lenn laa ci mos a wax te bien avant sax booba sax nekkuñu au pouvoir te loolu dama ko wax parce que kenn moo ma ko rappelé parce que ma mosoon booba boobu temps Macky Sall la président Macky la woon bi may wax comme man maa ngi doon liggéey ci économie immédiate beeg problème yi am ci emplois des jeunes yi ak yooyu ma ne nañ ma jox DER man ma def fukk ñoom li ñuy def maanaam li ñuy résultat ñuy def ma def fukkam Tata, je continue à le dire, hein.